Euh, jërëjëf tey lu ñu dajale woon fii ci siège bi nga xamante ne mooy siège permanence nationale de la per mooy benn point de presse pour ñu wax ci li nga xamante ne mooy suñu treizième anniversaire de l'Alliance pour la République xam ngeen ne chaque année dañ ko doon fêter dañ ko doon célébrer mais ñaari at euh, ren moo def ñaari at célébrer wuñ ko parce que Covid bee fi jaar moo waral à chaque fois ñun dañuy jël occasion bi dajale quelque membre de la COJER wala quelque membre di parti waxtaan ak sénégalais yi effectivement de ce parti euh, du ñu dajale du ñu def rassemblement yu rëy a rëy. mais rassemblement yu ndaw la ñuy def pour fàttali nit ñi alliance pour la république yan anam lañ ko créer ak biñ ko créé ak léegi lan la fi def xam ngeen ne euh, bii mooy fukkeel ak ñett anniversaire am donc parti la bi nga xamante ne c'est un petit partie par l'âge mais c'est un grand parti par les victoires bi ñu ko créer en 2008 38 mois seulement d'opposition lañ def jël réew mi biñ jëlee réew mi ak léegi ñëpp xam nañ ne avec la coalition benn Bokk Yaakaar Alliance pour la République di ci jouer un cent un rôle centrique euh, booboog léegi pertuñu benn élection donc jaaraama Alliance pour la République tout ça c'est grâce au leadership et à la générosité justement di président de la République donc ñun ndaw ñi ñoo ngi féliciter président de la République ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko non seulement ci parti bi mais ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak ci réew mi yépp te xam nañ ne aussi parti bi bi mu jëlee réew meeg léegi président bi mu nekkee ci bopp réew meeg léegi xam nañ réalisation yi mu fi def wàllu wu ne secteur boo ci jël rek président euh, doublé na li fa nekkoon wala triplé na ko wala euh, en tout cas def na fa lu rëy a rëy donc jaaraama à l'Alliance pour la République et ses membres c'est l'occasion également pour ñun ñu jaale ñu ñaanal ñi nga xamante ne nekkoon nañu ñoom depuis le premier jour la création du parti ba yàlla def tey ñu jóge fi donc ñoo ngi leen di ñaanal Euh, bu baax yàlla xare leen àjjana mën nañ ci cité ñu baree bari mais ñi ci gënoon a fës mën naa wax ne euh, kii di Fatoumata maxtar Ndiaye dëkk Pikine kii di gouverneur Maham Ka Alioune Badara Cissé maître euh, ak ñi nga xamante ne ñooy Amath sen Abdourahmane njaay donc ñooñu ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal bu baax di ko jaale wa Sénégal di ko jaale parti bi di ñaan rek yàlla xare leen àjjana ajjana bu gën a ajjana euh, firdawsi